mbokki internet yi safoo di seetaan info 221 daleen ak jàmm ci xibaar soxal manifestation bi waaye kan bi waroon a amal ci àjjuma ak tey ji yamoog la 17 juin nekk li nga xam ne moom moo di manifestation bi ñu waroon a amal foofu la ca place de la nation mu nekk manifestation bi nga xam ne autorisé wuñu leen ko woon benn ab yoon tax rek waaye askan wi ne woon ñoom dañ koy amal ak lu mu mën di demee loolee waral tey ci 5 heures du matin police yi daal dañu daal di dem ca koñu Ousmane Sonko daal di koy warale ay barrière ba képp ki nga xam ni danga nga bëgg a dem foofu la ci kër Ousmane Sonko doo fa mën a yegg benn yoon bépp yoon bi nga xam ne dafa daal di jëm kër Ousmane Sonko ñoom dañu ko daal di baare ngir rek dakkal manifestation bi nga xam ne nii moom la waaye Yewwi bi war a amal foofule ca place de la nation ngir rek empêcher nit ñi nga xam ne ñoom ñoo war a daal di ñëw daje foofule ci kër Ousmane Sonko ngir daal di koy rek mën a gunge pour mu dem foofule nga xam ne moom moo di ca manifestation ba ginnaaw manifestation bi jàlloon le 8. info 221 mu nekk manifestation bi nga xam ne. des milliers de personnes daal di woon nañu daje foofule la ca place de la nation mu mel ni sax am na ñi nga xam ni ñoom loolu lañ jàpp ni moo tax rek ki nga xam ni moom moo di préfet bi daal di leen bañ a nangul li nga xam ni moom moo di seen manifestation bu 17 juin bi ñu nekk